lamb sàgg na yaa ngi ngaan lamb sàgg bu lamb sàgg mbar ma waaf ca geew ba salaamaaleykum salaamaaleykum à tous nos amis internautes de votre site d'information sans limite sans kontaan bu baax baax ci ànd bi ñuy ànd ak yéen alors seen première numéro wala sax seen première émission bi nga xamante ni mi ngi tudd lamb sans limite émission bu bees tàq la lépp li nga xamante ni dafa soxal lamb loolu la ñuy waxtaanee dañuy dem di faral di eh, waxtaan ak chroniqueurs yi ak yi mbër yi dem sax ba ci lamb ji di leen fa defal ay reportages am solo alors tey ñëw fi nga xamante ni moom mooy Thiaroye ku wax Thiaroye wax Khadim Ndiaye le sponsor de Thiaroye ñëpp xam nañ ko macha allah eh, jamono jamono ji ñuy wax a génn nag mu ngi nekk ak ay xaritam wala sax ay rakam di leen di encadré ngir gunge leen ci seen carrière mais balaa loolu yëpp nag dañu koy nuyu bàyyi ko mu nuyoog mbokk internet yu sans limite yi ñëw euh, ci euh, waxtaan bi père maa ngi lay nuyu la ziar. waaw soo di la sant di sant waa sans yëpp di sant mbokk internet yi ci Europe ak diaspora bi Asie ñoom ñëpp maa ngi leen di ñaanal jàmm yàlla defal leen jàmm euh, di di di wax ni ah, bisimilahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñuy sant yàlla julli ci yonent bi ñaanal suñu ñaari waajur ñu ngi sant sëñ Muntaxa Xaadim Rasul di ñaanal sëñ Bass Abdou Khadre suñu bunt ci Serigne Touba muy sëñ Modou Abi Mbacké di nuyu njabootu sëñ Abdoulahi borom dër bi yëpp di sant ñëpp waaw kee mooy Malick Dia moom mooy xaritu yi xam nga moom moom mooy mooy lépp Caaroy daal di sant waa yi di sant waa Sans Limites yëpp nag di ñax diaspora bi Europe Asie ñëpp ñu ngi leen di ñaanal ku nekk la la tax a jóg yaa ko xam yàlla na la ko yàlla yombal ci barke Seydina Mohamed ndax ñoo ak ñun benn lañ di nuyu Père Diop mi ma toogal di sama conseiller di nuyu ñëpp di la déglu say question alors la déglu say say question mais question bi nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee gis nañ ni ay euh, mën naa ni si combat yu mujj yi nga xamante ni doomu caaro yi dañuy bëree gis nañ mobilisation bu doy waar yéen ñëpp mag ñi Ousmane jóob yow ah, Issa ah, Issa Pouy yéen ñëpp ngeen ni bootu si kaw xale yi ngir jàppale leen loolu noo ko noo ko dundee. waaw loolu dafa war muy maag Ousmane Diop loolu bu ñu ko defee dañoo war bu ñu ko deful dañoo war te temps yi boo gisee revanche bi booy def nii booloo bi moo ko waral ndax bu ñu leen boolee rek encadré leen ñu nekk <coughs> ay jàmbaar yi fëkk tëdd wax dëgg yàlla dañ leen yi ñaanal rek yàlla defal leen jàmm ndax làmb dafa metti te booy ay jàmbaar lañ te mbooloo mooy doole. benn bant bale bu la neexee mën nga ko jàmm damm ko nu la neexee mais boo boolee fu bant bale yi boo ko boolee ba mu bëri pour nga damm ko day metti ndax dañoo booloo mbooloo mooy doole ci lépp luy nit mënti def rek. bu ñu àndul xool yi nekkul benn rek mënta dem moo tax caaro yi ñu ngi ñaan yàlla lafal ñuy cat ci yàqkat yi ak noon yi ñi nga xamante ni juboo ak bëgguñu sax ñaari nit ànd bëgguñu sax am réew sax am na ñoo xam sax dañuy dem ba sax am réew ñu bëgg réew mu am jàmm képp ku bëggul nag loolu nag yàlla bu la may yàlla may jàmm yow ba doo ko tal loolu la ñuy ñaan quoi. alors ñu gis ni keroog ki nga xamante ne moom mooy Jackson Jackson bi ñu bëreeg euh, na Ahmed Deme moom la ñu mujjee jox victoire bi euh, Lirou Diane ci waxam ni yéen da ngeen waroon ruus sax di déposer ay recours que euh, booy bi seen rakk la waral jaru ko woon daal noonu la ko gisee yow noo ko gisee. rakk boo xam ne da laa a kooku rakk kay fa c'est que xam nga nag moom moom gis nga nag Ousseyn nga baal ma nag sama waa jooju sama doomu ndey la sama xarit la mais moom bu tuxee rek day day day day day ñoom recours ci ñoom la fekk baax di moom moomu di wax recours ci ñoom la fekk baax di Jackson nag suñu rakk la ñu ngi koy félicité xale bu am talent ñu ngi koy ñaanal bu amee combat keneen ku dul waa Thiaro yàlla na ko yàlla may ndam xam nga temps yi daal wax dëgg yàlla dama man wax naa dem ci booy sax naa autorité ñëw ndax ni ñuy def waa géej waaye moom wax dëgg yàlla. Ah, daa mel ne la liiru doon wax avant combat. waaw du mais na un jox nañu victoire xam nga. non franchement rek rek dugg fa ñaari yoon rajaxe leen ñuy waxati amet jëm ñëw doggaliwaat lii daal wax dëgg yàlla moom day lëng di yóbbu rek day lëng di yóbbu rek xam nga maa ngi moom a ci des nag maa moom comme nee na moom maa ngi moom a ci des léegi mbart doom neex ndeyam dégg naa nag may wàcc sama jibile mu ne man maa tax mu daw ndax ministre bi yokk na cinq ans <laughs> man maa tax mu daw xam nga damay lancé défi moo gét ak yeneen promoteurs yi. am le 15 euh, mai bi. ku ci soxla sama combat ak Lirou Diane je suis prêt pour jàkkaarloo ak moom ba pare doo ko def sama jibile wala bu amul sama jour jibile ma bëre ak moom. maanaam promoteur bu taxaw. ngir bëgg a tëgg sa combat ak Lirou jaan yow pare nga pour bëre ak Lirou mu leer benn yoon parce que moom da lay traité moom daf daf lay. non lu ma koy wax te daan. <laughs> yow da ne ko de. na man damay 15. sa sa la ko waxee. tey nga ñëwaat tàllal ma micro ci san limite. man dama ko doon sàngu sutura. mais moom day tux. lu muy tux lu bu bon bi est-ce que sax du ko jaay xanaa gisoo liiru waxam ji bëri jéeg ratatatan ji ah koro gisoo ko lu gaaw gaaw jooy na fa ah comme bala gis nga comme bombar ji amul lu mu waxul bombar ji ah man dama yaakaar la ko Bombardier joxoon moo ko topp saraxu combat moom daal dama yaakaar ni waa Géejawaay mooy seen mooy saraxu Géejawaay ñun dañoo xam saraxu Géejawaay caare duñ ko xam te li bii nag suma combat moom bu taxawee Ouzin billahi wallahi dinaa ko dóor ba mu tëddal boppam. mais père man man man man maa ngi fàttali ko bi nga doon bëreeg Baboy euh, combat bu métti boobu nga dóor ko dóor yu métti gaañ ko ba pare daan ko père loolu bu ko indiwaat ci sama liiru sama xarit la père sama waale te liiru Ousin la tudd comme man. waaw xam nga Baboy sama xarit la sama doomu ndey la maa ngi koy nuyu en passage ñu bokk sëriñ muy nit ku baax combat bu metti mais bu démb doon tey wax di yàll du ma bëreeg moom ndax ji ko jëmma woon xam nga mais liiru laa lay wax sama combat ak moom bu taxawee man dinaa ko dóor ba mu tëddal boppam. amul jàpp ay daanak ay ji négocier ak ay def nii dinaa ko dóor ba mu bëgg gis nga tey ji waaw gis nga li ma lay wax ni caare benn bopp la. gis nga kii taxaw ni mooy Sambay kii taxaw ni solkab bi mooy Sambay Diop moom moo yoroon Reug Reug ci gaalam moom ay filature la yor kii mooy doomu Baye Birane gis nga mbaal boo laajee mag sa xam na ko sa papa <coughs> moom moom moo yoroon Reug Reug Reug du bëri te ñëwul ci kër gi nga xam ni moom mii ñoom capitaine yi capitaine yi caare yëpp ñun ginnaaw yàlla dañ leen di ñaanal yàlla fu ñu campagne yàlla na leen yàlla may jën ndax ñooy jàppale suñu doom yi suñu rakk yi bu ci ci bëri ñoo lay jàppale. kon capitaine yi caaroy géej yëpp kenn mënu leen a fay lamb daal li ñuy wax lamb dafa metti di gërëm nouveau maire bu bees bi wax dëgg yàlla El du Ndiaye sama doom baay la Ndiaye la sant xale la te mi ngi doog yor ndombal tànku maire bi mais xam naa ni te avocat à la cour la te xam naa ni mi ngi jàppale xale yi daal. loolu dina dinañ si ñëw si nu mu gën a yaatu alors bu ñu gën a avancé un peu euh, gis nañ ni yi euh, boo xoolee euh, ki nga xamante ni moom mooy Eumeu Sène ak Bombardier ñoom ñaar seen combat daanaka 15 jours rek moo ci des combat naka nga gisee combat boobu. waaw combat bu neex nga ko. combat royal xam nga lu tax. ji dafa daan Balla Gaye ñu ne déetawaay mu daan Modou Lo ñaar ñaara ko dese ci booy yi muy Eumeu ak Bombardier ak Gris Bordeaux daanoon na ko mayaat ko revanche xam nga presque damay wax ni Eumeu moo ëpp ci mbër yi ñi mayaat revanche xam nga ndax boo dee seet moom presque day ci tanoor yi moom kuy may revanche di ko mayewaat la mais di wax ni Eumeu Sène gis naa ci moom benn jeune talent bu benn affaire boo xamante ni dama ko gis ci Eumeu Sène muy muy wàllu ci wàllu ci wàllu làmb ma gis ko ci Eumeu Sène euh, muy nit koo xamante ni bu bu xeesee rek amul doole mais bu ñuulee am na doole te combat bi dama gis ni Eumeu Sène dafa bëgg combat bi daal. mais nag mu ngi bëri ndaanaan boo xamante ni ndaanaan la ku daan Balla daan Modou xam nga dëgg yàlla ku na doon ndaanaan waxul dëgg mais Eumeu Sène man damay faral di wax ni ci lamb ji ci tanoor yi ci lamb ji gisuma ko ci dàq bëri ama seen ci dàq bëri sax suma ma yeboo ni moo ko moom moom laa ko gis ndax laa la gis mbapat arbitre naa ko mbapat muy daan arène bi dala daan téye ba mu dëgër tapp sa tànk mbot la ku amul technique boobu mënoo ko mais rek mu ngi bëri koo xamante ni luur la comme ama seen moo daanoon nag ah ji mooy jël si revanche ñu bëri ñu ngi séntu lu ji war a def si waaw xam nga tey ñëpp ci Bombardier lañ war a xool ba xam lan lay def si. comme dañ ko daanoon nangu roi bi ci moom kii mayaat na ko sens ah ñu xool fu wàllu di mujj ba. mais Bombardier bu bu bu tegee tànk droit bi di direeku ndànk rek bañ a bañ a bañ a waaxu comme ni mu doon def nga yaakaar du sawaay du am problème. non attention ndax Eumeu Sène nag làmb waru ko jaaxal nañ waxante dëgg ndaanaan ku du fadrin la nag ah Eumeu Sène gone ak Pikine si nga wax dëgg yàlla moom ndaanaan ku du fadrin la xam nga boo xoolee ci ay bëreem rek di nga xam ni moom bu dee bëri rek ñoom ñaar di nga gis bëri bu neex waaw mais Bombardier day mbër moo xamante ni car macha allah toll na fi aasam war a jeexe mais fi la ëpp doole tey waaw tey nag Bombardier pour mu ñëw percer ko daan ko euh, Eumeu seen pour mu ñëw percer Bombardier daan ko tey day doon loo xamante ni grandeur lay doonaat ci moom xam nga Bombardier tamit daan Eumeu seen day doonaat grandeur ci moom day fayu rek day nekk 1 moo tax làmb jooju cin luy baax la amul fenn fuy sedd hmm. alors ba léegi yéen a ci seen émission lamb sans limite tey ñu dalal ki nga xamante ni moom mooy euh, père Khadim Ndiaye alors bu ñu gënee avancé tuuti euh, mooy gis nañ ni euh, combat ki nga xamante ni moom mooy Ama Baldé ñu ñuy wax naan dañ Gaston production tëgg na ko moog Gris Bordeaux mais balaa boobu Zarko ak ki nga xamante ni moom mooy Baye Mandione Sarak combat boobu noo ko gisee. waaw combat la bu neex combat de choc la boobu combat bi wax naa ko avant muy taxaw combat b choc bu choc la bu neex la ndax Zarko ku bëreeg Siteu bëreeg Sa daan bay guur gi bëri ki démb wax dëgg yàlla. façon bi mu ko daanee façon bi mu ko daanee champion nga. xam nga mais Baye Mandione bu fàttali ku bëreeg mu Lo bëreeg Gris Bordeaux ah bëreeg tonor yi fi mu métti ñii yëpp bëri ki démb boo njaay roi des arènes bi mu dóor ko mu wàcc. Zarko jël ñu ah dañuy delloo mbàtt ci moom ko rek Zarko ñun jaaxaluñu. ça dafa war a entraîner ñu bëri na ni Zarko dafa am puissance quoi. non dafa am puissance loolu du dara gis nga puissance loolu du dara mi ngi mel ni nit nga am volume nga gis nit ku tuuti ëpp ko am volume ki doole mais njoon mi du jël combat Zarko te du entraîné duñ ko ci bàyyi mi ngi entraîné. mi ngi entraîné te bu jour ba li ci li ñuy wax euh, maanaam li ci war lépp ci combat bi ñun dinañ ko def te dinañ pare incha allah bu arbitre fër ñu jàpp Zarko duma ko daan ko champion nag la ñuy bëreel muy Zarko xeebuñu ko <coughs> pardon ñu ko mais xam naa ni Zarko am na combat mi ngi doog am combat nag waaw. alors xam naa bu bu làmb ji gënee jege si dinañ si ñëw ñu daal di koy waxtaanee mais dañuy ñëw fekk la nga toog ñu gis ni yaa ngi sol tuuti Thione Ballago Seck euh, macha allah ndax euh, ndax mën mën nañ ñi ba mu euh, génnee àddina ak léegi ñu ngi toll si at ak juróomi fan bis ni ki tey noo noo noo dundee anniversaire décès bi. xam nga di sant yàlla di julli ci yonent bi di wax inna lillahi wa inna ilayhi di sant yàlla julliwaat ci yonent bi ndax Thione dafa nekkoon kenn ci man barki démb lañ ko doon lay am at ci suuf. xam nga di ñaan fa mu jëm ci suuf yoof yàlla na ko dàqal fi mu jóge te doomam Wally Seck yàlla na sut baayam bi ay fan di ñaanal jaaga muuru bi mu mu mu muurul coon yàlla na ko ci yàlla def ay ngëneel te lépp lu mu ñaan rek yàlla na fekk boroom këram muy nit ku sell moom it muy yaay Wally Ballago sekk di di Kiné Diouf di nit ku sell xam nga ndax coon day kenn ci man teere ba ngay gis teere oris ñam mag sax ñëpp ñëwoon nañ coon laa fa njëkk a invité ci santé te boobu mi ngi toll ci digg ndëndëm mu nangul ma accordé boobu lañ fasante kóllëre xam nga 2003 la woon xam nga 2004 2004 yooyu ba léegi ci lañ fasante kóllëre ba joon yàlla tey xam nga kon kooku yaakaar naa ni tey bu dee ba am doom ju mel ni waali nga gis lim fi def ay ay nit yu sauvage kenn xamu leen ay nit yoo xamante ni liggéeyuñu tekkiwuñ ci réew mi dara loo xamante ni sax mën nga taxaw ne ñii lii lañ def ci réew mi lu dul nekk ci réseaux sociaux yi fu mu gën a ñaawe rek ñu waxal ko waali fu mu gën a ñaawe rek ñu waxal ko Wally loolu nag day arrêté ndax réew mi réewum loi la xam nga bu doon doole la rek barki Serigne Fallou Mbacké mën nañ koo facc rapidement xam nga mais tooñ dafa yàlla du ko bëggul yonent bi bëgg sëñ bi bëggu muy te damay cité ay tur mooy kan ak kan muy ku ci mel ni dix mille la xam ne six mille six mille muy xale bu yaree ko ak ki nga xamante ne mooy xalifa rappeur xam nga taxaw di saaga di saaga koo xamante ni yow du àdduna du ko yàggee mukk ba mu fayu ndax sequ kook yow dimension bi dépassé na foofu xam nga nga sëg ci tëgg ci deru noppam bi rek lu ne nga wax ci lu fu mu gën a ñaawee rek mooy li ñuy wax rek jamono ji nit dañuy seet fi mu gën a ñaawee ñu di ko wax. loolu day arrêté waali xale buy liggéey nekk ci yoonam jotewul ak kenn dara xoolal barki démb ni ñu ko def ci arena indi ko mu war a way ñu dugal beneen ñu dugal ñu dugal beneen kii bu ci bokkul. beneen son. mais ñu ngi tuumaal foofu ñu ngi fay tuumaal famille Youssou Ndour rek. waa xam nga àdduna moom nit ñi moom lu ñëpp wax lu ñëpp wax dañ naan dëgg la xam nga nit nag mënoo di lekk sa tàngal banaana bëgg a lekk bëgg a nit ki bu kaani. waaye na ko waaw. xam nga loolu yëpp mi ngi réperté wu nga lekk sa tàngal banaana bëgg a yow bëgg nit ki bu kaani kenn du ko nangu réew mi kenn moomu ko réew mi Sénégal gi yëpp la. comme bàyyiwuñu sëriñ si bàyyiwuñu sax nit ñu baax ñi nga xamante ni ñoo fi ne di def lu baax ñu ngi leen wax lakasulu noonu boo gisee réew mi amee jafe-jafe loolu ci li ko indi ci la bokk. tey da ngay nekk ci yoon ma war laa jàppale jiitu la ci mbir mi war laa jàppale di damm sa tànk xam nga ku yàlla taxawal kenn mënta damm tànkam xam nga famille Youssou Ndour ñoo ko def xam nga ñoo defuñu ko su fekkee ñoo ko def loolu ñu def dara rafetu ci dara rafetu ci dara rafetu ci dara baaxu ci xam nga kii xale la te jàpp na ni man li ma gëm Waly jàppe ne Youssou Ndour comme baay kon Youssou Ndour na ko war a jàppe comme doom bi yaayam papam gaañoo dégg nga la fa taxaw wax bul tiit dara kon loolu da ko war a jëfe xam nga da ko war a jëfe ba mu leer ci kaw nit ñi mais nag nit ñi moom fa faqasal moom dafay yàgg ci réew mi mais Waly yàlla na ko yàlla teg loxo gis nga ko yàlla samp bii billahi kenn mënee su la daaneel li ñuy wax nii Olof Njaay day wax leen euh, garab gi sax ci digg pénc law bi du ko gis sax ba di ko gor mooy mooy Waly barki sëñ Tuubaa Mbàkke alors kon yow dafa dafa nga bokk ci sénégalais yi nga xamante ni donte nit bu nekkee si ay kaso yooyu kenn du ko yéene mais ñenn ñi dañ naan ñenn ñi dañ leen ko yéene ndax da nga bokk si ko yéene ñaar ñooñu. man jullit la sama moromu jullit du ma ko yéene safaan jullit la te dama yor njaboot mais ñaanuma yàlla ñor njaboot gu mel ni comme 6000 problème ak ak ak ak xalifa rappeur taxaw di saaga di saaga di saaga te dalay wóor ni yow wóor sa digganteeg yàlla sañoo nit ki fekk ko mu taxaw ànd nga di ko saaga. da koy assimile gis nga fii ay sóob maan dong nga fi ne ay sóob maan xam nga taxaw naan maa wax lii maa def nangam pour bëgg buzz yooyu dafay war a jóg gis nga nit da war a futteeku liggéey xam nga da war a futteeku liggéey xool tey ku mel ni sëriñ bi Ablaye Diop xas nga xam day day faj ba nga wér di dimbalewaat yi li muy liggéey di ci di ci teraangaam ci lay waññeeku di teral nit ñi xam nga kon adduna bi ñu baax ñaa ngi fi ci réew mi xoolal ku mel ni As Ndaw Ndoukoumane ay yëm Pape Mayel Diop ay Doudou Ka Mbaye Sarr Sénékartu waaw Maître El sama doom day sama xarit gis nga réew mi ku fi baax rek wala ku fi tekk rek waxal nañ la lu bon mais Wally dama koo xam comme yow ni ma la xamee dama koo xam bu baax juddulu ko sama kanam xam xam yaayam bu baax jaaga barki sëriñ Touba Mbacké yaayam sax li ñu koy gis ci écran bëriwul ndax yàlla xam nga te doomam ji toll na fi mu war a toll tey am na ñoo xamante ni tey bu doon bu doon ñoo ko jur tey foo leen gis yaa ngi ci écran ñu ci écran bi. xam nga am na benn sëriñ bu génn sax di wax naan di wax Youssou Ndour wax di waali di bani bàyyi waali dana pël rek waali bàyyam faatu xoola loolu. moom dafa rëy ñaaw ah wax yu salte yooyu wax yu bon yooyu mooy leen ah nit da ngay xool lu mu rafete nga xam nga yooyu bu ko nit waxalee sax jëmale ko ci Youssou war naa génn sax démentir mais buñ la buñ la buñ lay seetloo yéen bu lay ji ak dëmm nga gis la ngay seetloo yéelu gone day mel lañ lay waxal dëgg la xam nga ndax ñun ginaaru kenn nenuñ mais li ñu xam ci xale bi xam ko ci moom yàgg ak papaam xam nga papaam seq ak moom ay teraanga papaam dëddu ñaan yàlla yàlla na yàlla xaari ko àjjana papaam dëddu li ñuy yéene waale lañ yéene Youssou Ndour moom lañ yéene ñëpp mais booy nag nañ bàyyi faqasal yi nag doy na waaw Liss daal mel na nga taxaw taxawaayu euh, remplacer baayam donte baay kenn mënu koo remplacer mais taxaw taxawaayu défendre sa doom Wally Seck. est-ce que xam nga réew mi lan la nga fi tey moo. réew mi dañu nekk ci réew moo xamante ni ku ci amul doole lool lool lool lool lool wala amul lu lurusé billahi torox ci dikkal na la barki Sëñ Fallou réew mi toll na benn dimension boo xamante ni li may nii ñu bëri nañ ci bàyyi xel boo amul doole lool wala amoo luñ lurusé billahi torox ci dikkal la. ndax léegi képp sa moroom doole danga ko koy géem a woon xam nga ah, ñii maa ngi gis tey ku mel ni ku mel ni ku mel ni Boucher ah suma rek suma rek la mais tey ñoom xalifa rëppëri ngi taxaw di saaga ba yoon teg leen loxo mu taxaw ne nañ jéggale lu tax ba ñuy saaga waxu génnoo wax yooyu du affaire u saytaane affaire u féeg xam nga affaire u féeg yooyu laa gën a bañ yow nga gis nit kii def ay tooxi doona chaque jour mu nekk ci nga xam ko bu baax di ko déglu xam nga ba pare nga taxaw ñu téye ko ñu téye ko ngay taxaw naan nañ ko jéggal mais xoolal xoolal loolu man su ma nekkul ci yoon dama bëgg ñu teg ma ci yoon. boo léegee keneen ku mel ni man su ko déggee tegu ci yoon lu ñu wax ñu naan am di tenue yi am di loi bi ñëpp la fi nekkal nit boo xamee sey loi boo xamee sey loi xam li nga war a def doo jël lu ñaaw mukk di ko teg ci nit ndax boo jure amee ndey am baay nga xam ne ku tudd sa ndey nga mer ku tudd sa baay nga mer waroo tudd baay jàmbur ba pare di ci teg leen léegi loolu doyatu leen xool nañ ñu fa xastal nañ dem nañ ci sëriñ dem lu ne mënuñ ci booy bi dara ndax booy bi moom ma wax la ko tey képp ku dem di ko géem a xaatim ci sëriñ doo nekk góor. tax loolu jigéen dootoo euh, dootoo dootoo indisposé. mais Selbé Ndom dafa waxoon ni Wally dafa am ay àndandoo dafa am ay rawaan nga bëgg a dëggal loolu wala. ma wax la dama la koy wax fii tey man xaalim musuma wax loolu képp ku dem ci sëriñ di ko xaatim ngay góor dëggantaan dootoo doon góor ba ba ngay sàngoo suuf. soo dee jigéen Wally Seck ci boppam soo dee jigéen dem di ko xaatim dootoo indisposé ti xaar de loolu mosuma ko dégg de. jàppal li ma la nag jàppal nattal bu baax li ma la wax ci bees meemu ndax booy bi booy bi jotewul ak kenn dara day liggéey rek di def social caare gii ma ne am na ci ay ay ambulants yoo xamante tey ña nga bitim réew di liggéey Wally Seck leen fa yóbbu tey ña nga bitim réew di dimbale seeni doole ay famille xam nga mais dañ dañu bëgg dañu nañ bàyyi affaire du défaillant quoi réew mi dañ bàyyi affaire du xam nga bu la neexee saaga président. Macky bu buñ ko saagaat mooy président de tous les sénégalais moom la fi yàlla teg te yàlla jëlee ko ko fi fekk nag li yàlla dëj nga bëgg koo dëj yaay dëjati ko rek xam nga réew mi dafa nekk réew bu njëkk ba boo dee seet à part 2000 bi ñu ci duggee rek ci la jikko yi commencé yàqu xoolal loolu rek li ngay dégg ci réseaux sociaux yi saaga ndey saaga wax lu ñaaw diw nangam ay xarit yu jigéen yi ànd weerante xoolal façon bu ñaaw bu ne booy bi kenn déggu ko ci loolu ah mu feebar mu dem seeti ko te xaar ko ko xam-xam ko digganteem ak papa coon tey boo doom ji dugg ba xam loolu dem seeti ko teral ko mais am na ñoo xam loolu neexu leen am na ñoo xamante ni lu bon lañu xam ba journal sax duñ ci lire len lu dul ay faits divers dañoo xam lu bon a bon a bon bon ba nga xamante ni journal duñ ci liir lu dul ay faits divers lu bon rek lañ ciy lire duñ liir mukk intéressant bi. alors euh, fi ñuy daaneel émission bi mooy xam nañ yaa nga waajal sa jubilé euh, mais dafa mel ne bëgg nga balaa ñu egg si après Korité bi ndax nag mooy jubilé bi balaa jubilé nga <laughs> dafa bëgg nga wàccee sama sama seex bi <laughs> sama sama tooma bi léegi lan ngay wax lan ngay waajalee jubilé bi say mbokk ak say xarit nga leen si woog yooyu. waaw ñi ma ci njëkkoo mooy ministre sport Matar Ba nga xam ne mooy ministre des sports te ba mu ñëwee ci sport bi léegi daa yokk rek may wàññiwul maa ngi ko ci woo moom laay déglu fi mu ne nii xam nga di ci oo Doudou Ka président bi nga xam mooy AIDB di ci déglu tamit euh, mbay Sarr bu Sénécartour. ñooñu ay nit yàlla lañ ay référence lañ buñ dee xool ci ñoom seenu jàngale rek yaakaar naa doo yéene sa bopp lu dul jàmm du ma yéene sa bopp lu dul jàmm su ma déggee ñu ne alal gàcce lay faj xam nga lan mooy faj gàcce doylu ak dëggu doylu ak dëgg mooy faj gàcc mais buñ nee alal gàcce lay faj gëmatuma ko boo dëggoo ba pare doylu boo amee ñaar dërëm di nga ko doyloo boo amee dërëm di nga ko doyloo mais boo doyluwul boo amee million. tamit yaa ngi séntu neneen noo dóore pour am ci yeneen ñaari millions yu ci tegu te loolu du àdduna yàlla na ñu yàlla defal jàmm defal la ko Ouzin kontaan naa daal ak sa caméraman bi yàlla na ñu yàlla defal jàmm muy yërim muy bon cadreur di caméraman bu mucc ayib jinne caméraman yi laa ko tuddee moom. waaw yàlla ñu yàlla defal jàmm defal la ko defal ko mboolem jullit di la wax ne liiru billaahi boo ma moytuwul billaahi boo ma moytuwul bu ma la dóoree billaay di nga xam ne lépp dëgg la barke Serigne Touba Mbacke sa bakkan boobu mel ni bakkanam nag bis ma ne leen tuy di nga xam lépp dëgg la waaw. waaw di nga xam ne lépp dëgg la te moom moom ki muy waxal ndax liir jaa xam la tudd comme man ñoom ñaar ñëpp samay samay samay père lañ sama turandoo la kii sama père la donc du ma xam xam naa làmb moom du ma xam nu ma koy reporté mais en tout a été un plaisir quand même. damaa xam turam bu baax xam yaayam xam papam Ousin Ndiaye la tudd. liir Ousin la tudd. waaw man Ousin Ndiaye laa tudd. moom Ousin Ndiaye moo tax jàpp ko day yomb ci man pour pourtant nii la ma ko waxee mënu ma mënu ma yow sama toomaa nga euh, waaw insisté ci bu baax a baax donc maa ngi koy baax a baax moom Lirou Diane euh, di leen béggee bu baax a baax sans limite euh, mi ngi noonu émission baa ngi noonu mi ngi tudd lamb sans limite lamb sans limite lamb boo xamante ne amul àpp ndax lamb sax kenn du ko kenn du ko dajal da ngay lamb rek boo paree sa morom ñëw continuer di lamb ça a été un plaisir de vous servir Ousin moo nekkoon ci présentation bi tey ñu seet si ki nga xamante ni moom mooy Khadim Ndiaye euh, tey moom miy waajal li nga xamante ni mooy jubiléem également buñ ci excès sans limite dinañ si ñëw macha allah ci nu gën a yaatoo Yirim moo nekkoon ci euh, montage bi caméra bi Ousin moo nekkoon ci présentation bi jaajëf ngaan lamb saake na samba yaa ngi ngaan lamb saake na bu lamb saake mbar ma waaf ca geew ba